jërë ngeen jëf euh, mbokki Dakar Actu euh, ñu ngi fii ci dëkk bi nga xamante ne moom mooy Ndingler gannaaw ay weer weer ba ñu déggee coow bi nga xamante ne nii moo fa am jëm ci wàllu suuf euh, mu nag lënkale kii nga xam ne moom mooy Babacar Ngom Sedima ak waa dëkk boobee ah Dakar Actu ñëwaat na pour xool fu situation bi teelu waxtaan na nag ak ñi nga xamante ne ñoo ñooy waa dëkk bi dem nañ ci tool yi am na luñ ñu jot a dénk ñu bàyyi leen ak waa Ndingler nettali ci gémmiñu borom. di leen gërëm yéen waa Dakaractu di leen wax ne que combat bi moom nekk na loo xamante ne gudd na lool euh, ñun nag ñu ngi ko tàmbale woon euh, euh, depuis daaw mois de de décembre. Euh, tolluwaay bi nak nek na amna lu bëri lu xew ci diggante bi euh, déjà que ñom depuis 2012 2013 ñom ñi ngi euh, ñi ngi si ci ci ci ay pression ak lépp li ngeen ci xam xam naa jaru sax may may may ci genèse problème bobu. euh waye fuñ ci tollu tay mo nek na ni que def nañ ci ay démarches yu bëri dem nañ ci rencontre préfet ñun wa comité bi dem nañ ci fu nek euh, dox si nag ay ay jéego luñ si def mooy dem nañ ci euh, chez chez le sous-préfet dem nañu seeti préfet qui qui nous avait convoqué euh, dem dem nañ si daal fu nekk dem nañ sax ba médiateur de la république donc ñu constaté woon que amoon na benn instant ba nga xamante ne alors amoon na véritablement tension bi xawoon na wàcc tension bi nag bi mu wàccee xam naa dafa fekk rek euh, waa dëkk ba euh, bi ñu paree seen i ay activités yooyu euh, alors xaw nañoo nekkoon di toppatoo seen tool yi waaye tension bi dafa gën a monter ci période bi ñu nekk nga xam ne béykat bi moom bu nawet bi dee waaj a si alors dafay ruuj daa di jiw ndax dugub dañ koy jiw avant avant avant donc muy taw fuñ ci toll nag nekk na ne ñii ñu ngi waaj nawet bi gis nga kii manche ileer la euh, dem nañ jiw seen euh, seen dugub euh, defe naa waa ji dafa xaar bi ngeen jiw ba noppi <laughs> mu ñëw ak tracteur bi donc daal di tasaare lépp li ngeen fa jot a def donc tasaare lépp luñ fa def donc ñi nga xamante ne seeni ay moyens mécaniques je veux dire traction animale la ñuy liggéeyee yow nga indi ay gros engin pour donc yàq lépp liñ liñ fa liñ fa def liñ donc euh, fi ñu fait. li ñu la alors bi nawet bi dé a gis né gën na euh, affaire bi donc euh, jaxase ko yàq liggéeyu béykat yi te béykat yi mom fi ñu nekk vraiment jaxlé la ñu nit kenn te Babacar xamna ndax gis nañ ni ñu ni ñu vis-à-vis de lui bi mu fi di donc nawuñu ko yaakaar ñu lenn ci ci moom lu dul wante nag ay nit ñu am fula lañ am jom lu ñu yaakaar mooy béy bu ñu béyee dañuy am li ñu dundee donc ñu ngi nii toog di xaar mu taw bu tawee nag réglé wuñu problème bi defe naa dina ñëw fii ci nawet bi fekk béykat bi mu toog ci kër gi loolu nag war naa nekk lu jaaxal ku nekk quoi ci adduna ñun li dégg nga ko voilà kon defe naa yaakaar naa ñoom répondre nañu question bi li ñu bëgg seeni tool bu ñu dee ne négocier it ku ñu woo ci dégg pour wax ak ñun dinañ la déglu mais dañuy déglu euh, proposition ndax dégguñu leneen lu ñu bëgg ñëpp chaque jour saa suñu euh, tasee ak ay nit dinañ ko wax mooy suñu tool la ñu bëgg a récupérer donc kon maanaam bu ma dee répondre si sa question bi nga xam ne sama sama papa bi suñu mbokk yi répondre nañ ko nee nañ bëgguñu leneen lu dul seen i tool waaw tey de njaaxle laa ci am euh, ma jàpp nag waaw Euh, déjà sax bi ñuy dem ñoom wax nañ ñu ne bi ñuy waaj a dem ci tool yi ñoom wax nañ ne ah gendarmerie de saa suñu xëyee nekk fa waaw gendarmerie ñun mënuñu ko wax dara man saa su may wax si gendarmerie damay ni gendarmerie ñun ñooy gendarmerie ndax suñuy rak suñuy mag suñuy frère nekk nañu ay euh, ay responsable ci gendarmerie kon ñun ñooy gendarmerie euh, defe naa seen rôle la ñuy def wante de rôle bii de man jaaxle jaaxal na ma ndaxte man mënuma comprendre ñu mobiliser ab institution wu dem ci soi-disant propriété jàmbur effectivement Mbaye merci parce que yow sax fekk nga sang bi may wax ak mom bi ma dee ne fii ngeen ne ku ko moom man dama lank ni ko fi samay tolu mam la kenn momuko kudul man mu nek di ma jéem expliquer que dafa am kayit ma ne ko loo wax nak ci article yu nek ci ci droit coutumier ndax ay nit buñu don euh, duñu dé exploiter souf lu weesu ay centaine d'années defe naa boo leen bëggee dindi bo bëggé nangu suuf soosu soosu yoon am na lu mu ci wax nekkul ne que am na kayit waaye ni mu ko amee dara da cee da régulier wul. maa ngi lay gërëm ci ci laaj boobu nga laaj dinaa ci sawar a tontu parce que dafa di loo xamante ne am na solo euh, ñun li ñu bëggut ci combat bi bëgguñu kenn ku ko politiser. combat bi combat citoyen la posture citoyenne lañ ci bëgg man dama koy wax fu nekk du ku nekk si nguur ku nekk opposition. ku ñëw si ñun dinañ la nangu dinañ nangu liggéey ak yow wante nag ñun dañuy doxee neutralité parce que bëgguñu ñu ñu percevoir ñu ko euh, politicien puisque en ce moment kon réponse bi politique rek lay nekk bëgguñu leneen lu ñu jot suñu suuf wante nag bëgguñu ci kenn ku fi ñëw di ci wut tur mos mosuñu ko xalaat suñu suuf daal suñu suuf lañu soxla suñu suuf lañu soxla xëj na néew doole mu ñu dab waaye bu ñu du leen dégg tur Babacar Ngom Fatick gi yëpp ndax ñaari millions yu ñu joxe fii bu ko jox woon benn kiir am weer ma jeex kon loolu xam nga ne faju ko dara nañu bay suñu toor ngir yàlla wax dag suñu jaam ngeen même Macky Sall suñu jaam la nañ ci jàppale sax buñ ci ci jàppalee sax baax wax dëgg yàlla jaaxle nañu trop billaay walaay ah déedéet ndax fu ñu daan béy tool yooyu yëpp ah, amuñu engrais te joor la def ku ñu jàppale daal pour ñu jot suñu toof walaay luñ ki ñaanal daal yal na ko yàlla fay daal Babacar Ngom moom wax dëgg dañu jaay doole tigi tigi tigi tigi tigi wallahi wallahi asim lu ñu def moom neexuñu tey neexuñu ëllëg su duñ ñu mos a neex ci suñu xool ndax baay lañ fa fekkoon baay bàyyi ñu ci suuf si sa njaboot la ñu am njaboot boobu tam dafa war a des ci suuf